ceeb ak diwlin moom lu ñu waxoon lu ñu wàññi yëpp amul benn njëriñ gisuñu ci dara c'est pas normal. en tant que en tant que jeune xam nga taxaw benn affaire bu ndaw war ci war ci job xam nga gars a jaar sa kaw loolu c'est pas normal quoi. da ngay jóg nga jéem a sa doole di def dara quoi mais exemple nga toog yow suba teel génne baraada warga ak suukar di caa jàppee ko noonu loolu jëmul jëmul jëmul jëmul kanam

du ñu am fenn foo xamante ne mën nañu fa def seen place def ko ci mbedd yi wala def am fu ñu ko def gars yi ñëw di leen buntu xataxal di leen jël seen place di ko di leen naka su dul noonu bon nañu xam ne aussi ñun ñëpp ay doomu aadama lañu yàlla mooy sàkk mais dafa utale doomu aadama yi yàlla mooy maye mooy xañ comprendre nga c'est pas normal aussi. am na ñoo xam dañuy jógee àll ba ñëw ndakaaru gii fi jàng métier ba abandonné seen dëkk fekk fu ndox foo xam ne ndox dafay taa nga ñëw jënd fa terrain ndox mi taa nangu sa kër ngay kaas ci nit ñi kooku c'est pas normal. da ngay xool lu mel ni Le Côte d'Ivoire ñu nekk quoi parce que Sénégal bi am nañ xel utiliser quoi parce que parce que lu lu Côte fi minutes doo fi Sénégal war nañ que Sénégal état war nañ dépasser fi toll nii. neexale policier yi de pas normal kenn parce que la du la francs député li leen di liggéeyloo ci dëkk bi te ñu leen koy génn ci état dëkk bi ñu war a defar dëkk bi kenn ko ci nekk fa nga nekk xaalis ba du àgg yooyu c'est pas normal. problème mu chômage beeg ñàkk gu métti gi dëkk bi dara doxul actuellement pour pour l'instant quoi. vraiment foofu man c'est pas normal dëkk bi war na au moins mu tane toujours quoi ñëpp jàpp ci dara quoi mais dangay am sa métier sax taay toog doo gis loo liggéey quoi loolu moom c'est normal. gaa yi nga gis ñuy dof dof bi dofuñu de dëkk bee metti moo tax ñuy dof dof lu di daw responsabilité añ reer ndekki <laughs> waaye sa dafa metti ah, fii xam nga léegi kër yi lu ñu lay rasal añ moo tax loo ci gis xoola xale yi jigéen yi bu ñu génnee fi ñu toll nii guddi gi ci la ñuy dem régler seen reer nañ jëndal benn sandwich ak boisson ci la ñuy lijjanti walla ndekki suba gàlle yi moom añ rek lañ lay jëndil mais reer moom ak ndekki sa waay moo tax boo yëpp am doom léegi c'est pas normal ñu sérieux wuñu xam nga benn Euh, jubu ñu xam nga gëmuñu yàlla xam nga. ñu nekk ci mbënd mi jamono yi ak ñu ñu leen tuxal dëkk leen ci école yi ok école yaa ngi waaj ubbi il faut ñooñ tamit sasal leen ay dëkkuwaay yu normal ñu bañ parce que njàng mi léegi école yi daaju ubbi waaw. problème agression bi c'est pas normal nit ki di ngay nit ki xëy di liggéey nga tëdd di nelaw. mu yel wer de ñu fay ko nga jël fasiyene ko jël jaay ko doole jël jaasi ko mu jël alam dem ko c'est pas normal. ba dëkk war na gëna neex ñun ay gor lañ mel comme ñun suñu bokk jaakati pune yi ci laay gën a jàppale tonnerre war na mën ñëw sans parce que intérêt dafa bari top ci dekk bi te lo lepp tamit c'est pas normal da ngay gor nek immigré in say bagage fi gaañ ñëw dañ si teg ay taxi yo xam gaay day metti façon metti bo xam da nga mujj sa yo mo do dem sa di dem di indi koner di ñëw sa da ngay décourager parce que taxi lay tek day metti tous le réprimes c'est pas normal ak yeneen ak yeneen loo xam lu fi nekk boo ko wax santa du jeex daal du jeex suma waay li ma gën a métti nag mooy courtier yi courtier bu njëkk ku ko daan def bàyyi dem retraite mais léegi ñan ñoo koy def ndaw yi kooku c'est pas normal ay xale yu tuuti toog di courtier di tëriande nit ñi rek moo tax chaque jour ñu woo leen police da ngay waaru c'est pas normal nag sonn nañ de grand fii li bi ne la buñ ko daan wax nee la duñ ci mës a jógee yooyu c'est pas normal wala c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal aussi